Euh, jërëjëf thank you very much ñu delluwaat fii si Star TV Sport euh, Bantaba euh, nekk programme boo xam ne rek far na di ñëw every week fii si biir lii di am kër gi ñu dooroon programme bu nga xam ne rek di ko waxtaan di way forward for Gambian football ak grassroots football fii si biir lii di am réew mi. Euh, René Wimbi René Bacha euh, moom nag ne euh, loolu mooy liggéeyam grassroots football gis nañ mu koo def foofu si biir di Banjul gis nañ mu koo def tamit fii si biir li di KM di jàppalante ak ñoom fii si biir Campo nekk ku nga xam ne rek moom laa fat defal li di programme bi fii si biir li di ama kër ji benn tey am naa tamit rek kii di ama Njoogu ama Demba Njoogu Demba nag turam kenn du ko war a mun a fàtte si football yi Euh, tax na tey moo nekk suñ euh, guest visite bi lii di ama euh, programme bi pour waxtaan ak moom si lépp lu nga xam ne rek mu ngi dund si wàllum li di football carré tamit rek ak lan la gis football yi Gambie jamono bi suñu war a jublu lu ma njëkk a def rek mooy dina bàyyi kii di kampu nuyu ñu nga xam ne ñoo ko seetaan fii si banta ba Sport Bantaba. waaw jërëjëf Mbaye ñu ñëwaati rek tànk suñu viewers ñu ñoo xool rek comme na koy devenir sax headlines yi rek te ñu ngi am suñu guest muy Yehuda Demba comme name. si a household name in Gambian football. Man, I'm very proud uh, to see a, a platform for him because man, Sarah Nago Mungi play uh, Europa League. I never feel Latin like with Greece, mm-hmm, mm-hmm. one of uh, best team in in, uh, football. So it's a big pleasure. Ruma Seya Mun in the studio. Plus, the new thing is soon. suma suma bro bi suma waay la xam nga nu mu ko defee. Mbacca la woon foo woon la waa Mbacca dafa dafa dafa demoon waa ñëwaat na Mbacca. so next stage like ah, dégluñ jéegu dem wax anga lu mu am pour wax ah gars yi ko tamit comme na ko woon dooroon mhm. naka la affaire demee léegi so mhm. Mhm. moom na ko mën a dégg si ah, boppam moom nu moo so na guys stay tuned rek am ah, enjoy this song right euh, Bajan waaw di welcome waa suñu bureau rek Ndiogou Demba si boppam si programme bi di ko wan ne ko si grâce la lañ rek ak moom dooroon na moom woon na bu yàgg a ba door. inveson naa so waaw waaw waaw inveson na lu bëree bëree bëree bëri waaye xam nga tam si biir yëpp moom moo ko mën a wax mu nekk nii. waaye ñun xamoon na ne inveson na ba amoon na tur xam nga ba pare si demoon na amoon na xayib daal waaye li ko yóbbuwaat suuf moom lañ xamul xam nga soo yëpp li ñu ko war a laaj la moom si boppam moom mu expliqué ko waaye di ko wax jërëjëf daal si lu mu ko lu mu amee xalaat boobu ba indi ko si dëkk bi. alright ok alright uh, thank you very much Bacha thank you very much ci uh, uh, ñu bàyyi la nga nuyu. waaw jërëjëf asalaamaaleykum Thank you for having Demba, former national team player, very much uh, kon dégg ngeen ko mooy uh, Njogu Demba uh, national team player la former national team player bu Gambia. Euh, tamit rek euh, biloon na fi lii di académie euh, gis nañ tamit jaar-jaaram foofu sa ma bitim réew xam naa sax di ngeen mën a seetaan lii di highlights am yu nga xam ne rek campagne nañ ko pour ngeen gis kan mooy Njoogu Ama Demba waaye kii rek Njoogu léegi bëgg nañu waxtaan ak yow rek kan mooy Njoogu Demba because tey xale yu bëri dinañ mën a na boo rombee si bi xëy na mën a xàmmee kii mooy Njoogu Demba you te yaakaar nañu very important pour ñu war na pour si archive bi war a xam ne kii player sangam la def na lii si réew mi mënuloo si play football rek gis nga tamit jotoon na pour nga war a mun a indiwaat fii si biir réew mi pour xale yi si grassroots bi war a mun a em si lebu boo em wala sax raw lebu nga xam ne euh, fa nga em euh, kan mooy Njoogu ak fan la Njoogu starté well Njoogu Demba Bakaw la starté fa laa juddoo jógee fi nag bu ma am eight years dem play football Europe Why by that time I was too young to play football at the professional level, but we moved to Sweden then. Umami it mel ni Ndiogou play wut euh, xëj nawetaan yee fii wala ligue bi fii ah, mel ni Ndiogou play wut ko de. déedéet ko. right so am eight years nga génn euh, dem Gambia euh, sorry dem Sweden nu mu meloon foofu noonu xam nañu yaa ngi woon Sweden comme noo ko waxee rek eight years boo ko am nga dem Sweden lan nga doon def balaa. play football ndax da nga dem Sweden rek door si académie yi wala dem school wala leneen ak leneen loolu jógu def. waaw dama dem Sweden rek dugg school continue where I took off from eh, left from Gambia and eh, I went straight into football academy. ma door play football. kon ndax mel ni football academy nga demoon. direct. bref eh, léegi naka la meloon foofu njóogu ak football academy bi foofu in Sweden ak yow naka la meloon. waaw comme man nu ma. gisee woon football bi before ma dem ak nu ma ko fa fekkee it was quite different. ndax man bu ma dem Sweden um, temps bi ma doon play football fii amuñu woon football boots amuma woon football sax to play with even football ground so ñun dañ daan defar suñu own football with ay morceau. waaw takka ko rek kii rek kii <laughs> léegi-léegi ñu eeg sa aji grapefruit yu gën a wow sa play ko tuuti nii ba mu toj ñu ajiwaat beneen <laughs> <laughs> waaye. bu ma demee Sweden moom ma fekk fa football field yu green ñax yu ne. mu jaaxal la mu jaaxal ma waaye yaa nga rek it was like a dream come true parce que amoon nañ fa enough footballs wherever you looked you saw a football. compared to ay. waaw waaw waaw compared <laughs> you know c'est la awar waaye anga rek façon yooyu tamit leen bëggal ñun suñu xale yi tey waaw. Euh, dina ñëw si loolu njóobu euh, di gisoon nga di dooroon nga projet bi waaye xamuñ olof sax nu mujjee euh, ñu gisoon ne njóobu dem si académie bi boo jógee académie lan nga def. bu ma jógee si académie bi I was in academy till uh, I became 18 years you know uh, categories when I became 18 years I was matured enough and. Uh, you know, understood much enough to become a professional. So when I was I signed for my first professional football club, at uh, Hecken, in Gothenburg, Sweden. Alright, uh, nga sign sa contract uh, for visibility di Sweden. Naka la meloon ak yow ak family bi? Waaw, ak family bi <clears throat> ma dikkoon Falun ma move to Gothenburg. which is about 700 kilometers difference. You know, so I was there on my own, but my family was my football team and my leaders, the coaches and the management. That's my family and my friends, teammates. waaw oh, naka la Ndiogou mun a pénétrer Swedish League bi. naka laa koy Swedish League bi. naka laa ñëwee Swedish League. well xam ne nekkul jaar jaar bu yomba. non du jaar jaar bu yomba it's a educational system xam nga rek football is not only play you you you get educated understand on how to behave. on the tamit language bi. waaw you must know some some things in football. xam nga you must have some kind of a behavior on the football field and off the football field as well. yaa ngi gis but. Um, when you get to understand these different aspects of the game and you master it, then then you are good enough to play pro. You know, it's the tactical and the technical and, the physical as well. When you are matured, you know, then you just go. alright euh, loolu rafet na Ndiogu euh, waaye tamit du ñu gën a mën a may si olof ah. Mm-hmm. Euh, am na fu mu jàng bilen <laughs> ko dugal <laughs> naa des daal. ñu gis rek Ndiogu dóor si Swedish League bi si yan top clubs la play in Europe because tey nit yi bëgg nañu xam si yan top. cross la play incident because Kampo jaar na fi am na fi lu mu wax. Euh, euh, seetaan si seetaan na la waaye tey ku la bugg a gis li la si la seetaan si yan top cross lañ jógu pénétré. well top clubs man xam nga si man top clubs is ay comme ñoom Barcelona ñoom Liverpool but I've been playing na si professional clubs yi nga xam ne de try nañ play nañ Europe. like European League and Champions League. boobu top la ñu. waaw loolu top club la <laughs> loolu top club la waaye. Ah, um, comme yow noo ko gisee daal ñun Real ñoom Barça. ñun ñun Gambien si ñu ko gisee moom foofu la. Ah, waaw ah, exactly yaa ngi rafet waaw waaw ndax su ma waree mention ay BK Häcken in Gothenburg. duñ ko jàppee top team. waaye xamuñu leen sax waaye waaw waaye in Sweden tamit top team la. ak ñoom Panathinaikos ñu nekk Greece boobu tam top team la teams yi nga xam ne dañ dee play Champions League qualification rounds and Europa Leagues ah, year in year out Odense of Denmark OB Odense uh, top team in Scandinavia and SK Brann mm-hmm. also in Norway mm-hmm. also a top team boobu mm-hmm. tamit waaw Nottingham Nottingham Yes, in England. In England, League One. Good team. It's a good team in in the league that it was, you know. At uh, English Yeah. yeah. All right. Uh, uh, ñi ñëw nag léegi uh, di dugga si because door nga di play football Gambian door nañ di teg seen benn bopp si Njogu ne war naa play si because Gambian la waaye comme age boo bàyyee Gambia was eight years xëy na nit mënoon naa wasa ne xëy na Sweden la mu play du ñëwaat play lii di ama Gambia naka la meloon ak lana waral. ba Ndioug war a ñëw plus si Gambie. waaw bu moom su ma ñëw bi Gambia dafa fekkoon ne man doon play Denmark by that time in Esbjerg and I was playing very well so play woon naa Greece. balaa ma dem Denmark play naa fa very well foofu tamit um, score naa fa enough goals waaw exactly ba pare ma ñëw Denmark ma def fa the same thing score fa enough goals so engrais Sweden si doxalee nañ daal di xam kan mooy njóogu mooy Sweden si boppam waaw Sweden si boppam ba amoon naa fa suma benn coach Trollsbæk mooy woon eh, ñi tamit sax Brøndby seen sports director for some years patron bi mooy team bu Ous Diallo player. Mm, mm, mm, waaw um, suñ coach boobu moom he was really on my side moom mu ma doon fightal lu bari daal pour ma player Sweden waaw um, so wax bi moom dooroon na foofu <laughs> ndax dañ ma invite na duñ ma invite pour ma dem player Sweden si diggante bi tamit xaaroon naa nekkoon naa di xaar xam pour ñu ooma waaye suma paa bi ndem si yàlla Obi Konaté mhm. mu kool ma bés fekk maa ngi Denmark mhm. di xaar Sweden bu xam ne is opaxaan dem Gambia that was my dream pour ma playal Sweden because ma foofu laa magee loolu la mhm. Swedish football laa amal everything so it was a dream I had to play for Sweden waaw ñëwoon naa ba jege ko nag waaye dëgg la man I'm a patriot man mus na dama mus a nekk patriot for my country so bi bu ma koolee ne naa ñëw player Gambia mu ne otherwise xale yi dañ koo yàpp <laughs> ñu fa nekk <laughs> noonu la ma ko waxee mm. mu ne bëgguma xale yi yàpp ma so maa ngi am suma doom bi nekk bitim réew ñu ne mënuma si dara so ñëwal nga woon la ne mën naa si dara waaw so noonu laa choosee pour ñëw player Gambia actually well uh, xëj na di toog pour think about it you know lan mu nekkoon si mind bi Sweden Gambia mm-hmm. lan la woon si mind bi lu nekkoon si bi for me at that time mooy woon ne eh, I'm not sure is student gonna call me or not dinañ ma oo na duñ ma oo te at that moment comme daal bi nu ma ko explain ale woon mooy Gambia dañ la soxla right now te noo gisoo national team bi time by by that time <laughs> I didn't know much about the national team but xamoon naa ne soxloon ne ma badly waaw so it's a national team I can represent Gambia as well man Gambia laa juddoo so why not so noonu laa ko gisee it wasn't very very difficult actually to take that decision no it ok léegi nag ñu ñëw euh, xëy na ñoom Bacha Kampo dinañ jot in ñoom it na am na leneen mun a fàttaliku lu ma mënut a fàttaliku wala ñu am na yeneen question ñu bëgg a impose euh, nu mu meloon sa force day ñëw si national team bi njóogu ndax looloon doon expect fekk nga si national team bi because compared to Sweden euh, xam nga yow yaa ngi si académie. gis nga lépp. Mm. nga ñëw si national team bi lan moo woon sa force réaction boo ñëwee si biir national team bi lan la njóogu njëkk a xalaat bu mu duggee tap si national team bi. man su ma njëkk a xalaat lu ma njëkkoon a xalaat mooy I hope ne dinaa mun a live up to the expectations loolu mooy woon suma force xalaat daal because waaw. so I needed to come and perform for my country knowing ne Jato Ceesay. was a very good player. No matter, take us all, no matter. Ah, uh, knowing that wasn't easy. <laughs> you know, I had to live the expectations. But bu ma ñëwee daal um, man lu ma dee njëkk bàyyi xel mooy field bi. Mhm. this is what we <laughs> look at first. can we can play on this pitch. waaw loolu lañ leen njëkk a bàyyi xel and uh, it was dry I remember it was very dry. the the the turf. Yeah, the turf. Wow, was very dry. So hanga field but dry, it's hard to run the ball. Yeah. Wow. wow. So, you know, I knew that it was gonna be a little bit lower tempo. So, yeah, yeah, yeah. So, compared to Loron Def in wow, Sweden. Wow, wow, Compared to that, hanga and um, stadium betamit, you know, our facilities there, you know, the dressing rooms and mm -hmm. everything, hanga It wasn't on that level that we ndax ndax ndax ndax loolu expect si Fatis Dior wax noonu when it come to medical because ñu bëri soo waxee gars yi su ma demee player Africa injury suma carrière mun na say yàqu waaye fii you know things can be different so loolu yëpp noo ko doon évaluer waaw digala la loolu moom dëgg parce que comme ni ma ko dooree xam nga you look at the field that is your number one waaw foofu nga ñëw daw see correct ankle bi can you twist oh, mu ngi dry mu nga càng om bi xam nga façon and you are injured soxla loolu tam bokk na si but the injury risk are high because léegi léegi nga daw sa gis loo ne foofu pax moom fa nga diggaa twist sa ankle bi xam nga loolu yëpp hit si mhm. so we think a lot because this is our job suñ liggéey la soo nekkee Europe di play you are insured you are insured knowing ne soo gaañoo dinañ la take care mhm. waaw sa salary di ko still am dinañ la still face sa salary and everything because yaa ngi gaañoo foofu si team si team bi but we didn't have that insurance coverage when you came to play for a national team know that's quite scary. <laughs> right uh, Bacha balaa maa ñëwaat suma beneen question bi uh, anything pour Njogu au Campo bu ko balaa maa ñëwaat because we have lot pour waxtaan ak laaj mooy comme bi moo sign professional level am su boppam as Gambian mosuloo come across benn Gambian koo xam ne mun na la wax di di di di di situation in Gambia naka la mel Gambian football in général. déedéet. après mosuloo bokk benn Gambian team. ankañ mus naa bokk ak Gambian team mus naa bokk ak Tijan Jaite team. in waa eh, waaw waaw. waxtaan di. the problems hmm. the issues. non <laughs> mostly luñ daan waxtaan when it came to Gambian football mooy <laughs> luñ fi encounter suñ ñëwaan daal luñ encounter waaw. understand naa ne sa moromi player moo la mun a convince jamono boobu sa moromi player moo la mun a convince mm. pour nga ñëw player si dëkk bi mm. te ñun yàgg nañoo dégg sa tur mm. ne yaa ngi war a player Sweden Gambia sang la soxla before nga ñëw masa min ñi xëy na ñun suñ gis-gis suñ suñ suñ xam-xam bu tuuti dañ yaakaar ne xëy na ñi ngaa waxtaanal convince suñ la pour nga ñëw masa Ibou Sylla wax na ko keroog si benn sax benn programme mu ne soo gisee eh, kii ñëw plé si Sénégal moom si la bokk. du moom mooy xot rek waaw du du mooy xot rek de waaye xam na ne moom si la bokk so moo tax maa laa laaj comme gamen si ngi daan pléyal yoo ngi ne tiyaan tiyaan jatari nga mos a pléyal a nga boo plé rek la waaye du ñàkk a assez Gambian doo daan di daan vu ak sa moromi Gambian foofu su waaw non non. soo amuloo woon kenn benn amatu amuloo benn player oo benn fan boo xam ne dafa laa mën a convaincre nga player su passé comme daal di kool na la nga ñëw amutoon. non not at that so man daal suma only mooy woon paa bi daal mm. moo ma convince pour ma ñëw player I can remember first game against Gambia Sénégal I think so a kon man waaw bu ko ma may remember time mu nekk lu ma fekk grade 10 maa ngi rimé maa maa ngi follow kii Champions League sanga di seetaan di wane Europa League qualification Gambien jógu def ñu di wane Gambien on Sweden sanga so ñu doon wane kii ba ñu ngi kuir ma suma boy ñu ngi wane kii Sweden la ba pare mel noonu kii Gambien ñeneen di wane Sweden la kii am ñu dem xam nga time internet amul dem war a dem ba gamte war na ma teg dem google facebook amul sax rek xam nga war a seeni seen i on in Gambie rek kenn mu ne waa tànga gis nga ñu daa Swedish nationalité la so ñu kuyi ñu ne waa kii Gambie war nañ ko ñu dégg rek Moses Nden mu def programme ne am na Gambie mu war a ñëw Njoogu Demba soo cappi añ ñu nga fa dikk am na Njoogu Demba giant la xaga kon si kaw nga ñi la gaa maa ngi ay jamono boobu tam Sénégal ñu ngi gën a exposé. Sénégal day talk about yu lu bari. yu bari woon jóg waaye sa dafa bari woon. waaw dégg foog nit ñi xam la waaye man. fanaa man su ma fàtte ko fu ma njëkkaa déggee sa tur si ku ma a déggee sa tur. ba ñu doon fële si Wane Ndiaye laa a déggee sa tur. Wane Ndiaye ok Wane Ndiaye ok. am na ku doon waa affaire yi suñ plan suñ plan ma dégg mu néem di ñëw dem man foo ma dégg ko bu baax salaa miin de waaye njóogu dem doo mën a plan nii nii ñooy mën nañ ko ma njóogu dem dégg ah, mm, ma njóogu si war nga jaay laa ko dégg mm, koy wax ñu ne kii tamit am na gars yi am nañ jaay tamit na tasaare Sénégal. beneen bi ma beneen bi ma beneen bi ma laajee dañ na mbay laaj na la ko sax waaye dañ na la ko ban différence nga si gis si di daal ak sa second country man mun naa wax ne man suma first match Angare moom suma player Sudan. While my first match for the Gambia, it was one of the uh, most strong feeling I have ever had in a foot on a football pitch. waaw because dama taxaw foofu noonu that day I was realizing ne we are 11 players right now standing on the pitch and we're going to represent a country that is populated by 1.9 million people and we are the chosen ones ñu la gars yi choose ne pour ñu represent Gambia waaw so it was very emotional yeah very emotional especially buñ taxawee foofu di déggal su national anthem bi ak noonu I have seen that on TV before, but this was the first time Osmo Bopamay represents Madika. so it was beautiful. Yeah. Uh, uh, ñu xool uh, ñu gisoon lu bëri ñu compare la with the next Zlatan Ibrahimovic. xëy na foofu lañ war nañ faa mën a ñëw ñu bëri gis ne ok du possible pour ñu mën a am njugu because ñu ngi ko compare di next Zala pour Sweden. all of a sudden ñu gis la nga ñëw benn tamit déggoon nañ tamit rek ne njóobu dafa régler lu tamu Premier League di Hmm. loo story sax waaw many times digga la tamit many times dama dee dama dee regret lu tax ma ñëw choose pour ak Gambia waaw and uh, yeah well it's because of things yuñ fi encounter hmm. waaw that is the reason you know but <laughs> loolu is just many times but in general anga daf ma jàngal a I learn a so I'm happy I did. ndax ndax joxul la benn euh, problème. sa biir carrière. ankay jox na ma tuuti problème sama biir. because nga dem in Sweden ñu la compare di nekk Zlatan Ibrahima nga ñëw Gambia. play ah. things mun ta walk in. Ah. nga wane ne da nga réglé pour player Gambia. di ah. xam nga rek te yaa ngi si sa peak of his carrière. ndax amul dara lu la mën a jox si sa biir football wàcce sa form wala def la leneen. non du dee wàccee form but engrais motivation mostly. mostly and when you are not you don't really perform. <laughs> you know, hunger, the, the motivation is very, very important. Wow. The Lunfidan encounter more than that you lose some motivation as well. léegi léegi da nga dañ laa invite pour nga ñëw plier sa dëkka yow da nga am pour fayal sa boppa ticket flight ticket ba pare nga ñëw gars yi def ko coow balaa ngaa jot sa flight ticket understand nga ba pare dafa so much. waaw nañ nag bëgg nañ nag euh, Ndiogou. Ah. Euh, ñu waxtaanee loolu. ba ah. foog naa ne loolu dina dimbale. Euh, pour presently ah. ñu nekk si football authority xam ne lii dafa mosoon a xew te buñ dellu si su lu mel noonu because foog naa ne is very important because player ku mel ni yow xëj na am na yeneen player right now Gambia ñu ngi yaan in pour am leen. Euh, pour ñu plaisi waa Bente ñu ngi push and pull Ibou Faye mu ngi def pour am they are top top footballers euh, in in in Europe euh, ku mel ni kii max Mahi kamara Camara replace Sène Étienne you know xëj na moom it comme yow looy wax ni xëj na loolu mu ngi ko def si maynam bi so bugg na ñu waxtaanee difficultés yi nga xam ne moo fa nekkoon te bugg nga pour ñu waxtaanee ko pour nga gis ne lii ak lii fa te lii ak lii ak lii war fa mën a nekka mm-hmm. bugg na ñu noo nga ëpp nopp mm-hmm. pour waxtaanee ko Gambien si waaw it will help a lot. it will indeed. xam um, nga those players gars yi suñ toogee si seen dressing rooms yi in Europe ñu look around ba pare ñu ñëw fii toog dressing rooms look around it's not the same. yaa nga understand. player bu bàyyi Europe pour ñu représenter camp ah we man believe naa ne we most. duñ mën a mel ni Europeans right now. Yeah. but dem war try ñu jël example from them. in way of preparing when we are preparing for different matches like man xam naa ne those days I'm no longer in the national team waaye those days moo ma fa nekkee. Mm-hmm. I was wishing many times ne national team bi amoon nañ suñ own hotel amoon nañ own. training ground apart from the stadium. mooy mooy balaa ngaa ñëw. balaa ngaa ñëw nga xam ne suñ ñëwee dina xam ne fii mooy suñ place fii la ñoo dem fii la ñoo ñu mun a. the facilities the playing ground and where we stay. hôtel bi hôtel bi where we put our players. ok Kampo euh, quickly balaa maa ñëwaat si loolu daañu baaja because euh, one of the important because nga war a bàyyi ama xëy na Germany wala France wala England Spain nga ne ok maa ngi Euh, comme ni ko Ndiogu waxee rek nga xool si dressing room boo dee nekka nga ñëw xool dressing room nekka fii hôtel euh, bi you know xool park bi tamit picc bi so foog naa ne loolu yëpp nekkal lu nga xam ne Ndiogu wax na something very important football authorities yi war nañ see bàyyi xel bu baax a baax parce que ministre yi war nañoo dimbale football authorities pour pour war a convince ba player ba am ne ak actis mactis top top moom fo moo play nga force la nga Sweden nga yaa ngi baax nga war a ñoo gàdde feegaloo loolu fóol daf la leen psychologue daf la leen firi surtout ba léegi nag ah, kilifam moo tax mu ñëw playal gàdde mhm. so mënoon na mënoon noon toog mu ne non dafa a tam a play man te soo mu tëj mañ jëlee loolu yëpp ba ñu playal Gambia xam nga loolu la ñu ko gërëm la bu ko mën a mënoon toog mën noo ba playal Gambie waaw ba comme ak Zara hmm. ko fii sax mbaa mosu la toogaa comme Gambie di ko mën a noonu la te su ko loolu waaw après bu playal Gambie bu ko mu ngi génne fii eight years xam soo génne fii eight years nga dem soo ñëw su leen fekk fekkala foog nga juddu sax xam nga because yaa ngi am yaa ngi yaa ngi nekk yaa ngi ànd ak tubaab bi sa sa life bi life tubaab la just you are just black but mm, mm. sa sa vie bi ba ay tubaab la so doo mën a am lot about Africa loolu di nga mën a remember foofu laa jigee boo xam nga loolu yëpp mu ngi nekk stock bu ko ku yàgg foofu moo ten fifteen years kay yow waa foofu nga kay yow ba léegi so loolu moo xam movement boobu tamit xam nga dafa dafa dafa dafa uti ak ak ak ak mouvement yi fii. so ñu ngi ko wane easy wul nag. kon ñëw na traîner chance am nag bu ko nekkoon na top player fii Gambia évité ne ba first game am na ñëpp di ko cawloo te mu replace koo xam ne. am na fi njóogu yu bëri mu jël numéro numéro numéro numéro boo xam ne. xam nga nag boo di best player Gambia tetuba bu si loolu yëpp sànni na ko mu pour boobam su ko help a lot but leen later on demoon na borom bi ay yeneen team ci but he was one of top player am na soo soo déggee ñu focus in Africa sax comme Africa yi score dañuy dégg tamit turam but bi kenn out ñu ngi ko wane jërëjëf comme ñu ñëwal player gars because life life life goes like because yàlla lu bind rek fa moo fa moo fa moo xam waaye tamit ewu la pour suñu lifi nii tamit suñu other place lañ su gars war a ñëw place yi su gars ñëwee fii gars fekka facilité bi baax bi baax at least compared to ñoom lu ngay am. waaw ne waaw mu nekk avat absa. so nag Bacha quickly balaa ñuy ñëw si njóobu nag. Ah, euh, si académie bi dinañ si waxtaanee. Euh, gis nañ tamit rek am na loo xam ne rek posoon nga ko sa Instagram bi mooy ñàkk a paak bu baax. Euh, dafa rey football loolu yëpp bëgg nañ see waxtaanee Bacha. waaw comme lu ko. because lu ma war a am lu ko saay waxee rek. doo bàyyi fële ñëw fii fekk foog ñu foog ñu ne ko jëlee. waaw waaw waaw si ñëw bi because tam nga xam nga nga boole ñaari dëkk yooyu noonu. Mm. because duy ne. yow foofu nga xam. Mm. because dal lifetime yi foofu nga ko def am foofu nga demee ba sa carrière bi am foofu nga ko amee. Mm. soo pour nga bàyyi foofu ñëw fii. te xamuloo fii lu fi nekk moo tax ma laa yónnee loolu te xamuloo fii lu fi nekk ba nga décide pour ñëw di ko dafa xaar trop waaye tamit ñu ne la jërëjëf rek. because suñ dëkk nga ko defal sa dëkk nga ko defal tamit waaye ñu wax la jërëjëf nga loolu moo si métti si boppam beneen bi ma doon beneen bi ma doon xalaat mooy eh, bi ngaa ñëw plaisir fii naka naka nga mun a compare suñu fans yi di wéy mu ñoo supporté di biir mu ñoo supporté ak fi nga jóge ñëw. bu maa ñëw I was welcome. waaw like ñun suñu fans yi I was enjoying them very much. waaw parce que Gambia digga digga den love football. waaw den love torop torop torop torop. and loolu gars yi dañ ko dee wone si stade su ñëwee di wee des support di wee support waaye tamit ki nga fans fans tamit mun na moo mun na moo affect player very much very much. there are some fans yi nga xam ne. when the team is not going well, they push you. And there are fans in Hamlet, when the team is not going well, they boo you. And boo will never help somebody. maa ngi ñu ngi dugaloon benn uh, lifin nii on Instagram comme ko am nii yaram mu ngi taxaw di seetaan keneen ko waroon de def some skills nii door rek ne ko ne yow amuloo benn carrière yow ku yow mënuloo dara si football yow demal demal demal nit ñi di rëy nga rek understand si commerce yi di rëy mabila fa beaucoup jilaafa bila beaucoup parce que affairs is up here yaa ngi understand parce que affaires yi players si su nekkee si field bi dañ dee everybody ñun dañoo daw dañoo def lu nekk waaye dañ dee ne fii tamit Gambie ñu ne nag mu sonna sonna soo ko jawee dafaa yokk daw wala fas mm-hmm. dafaa yokk daw fans itam noonu leen war a mel ndax ñu ñoo dee daw te ñoo daw ba bu ko wuju soo leen ñu supporté ah, dañoo gën a yokka waaye soo leen boowee dañoo lose motivation dañoo door di wàcca mentally you know man fii encounter naa fi boot ñaari yëpp boot boot. ok boot. boot saa support la tey support ma tey bu eh, ma man comme xam nga soo putee all these aspects yow nga xam ne bàyyi nga dat professional side pour ñëw represent sa dëkk. su ma waree compare fans there and fans here xam nga fili moom club bi laa dee player fii dëkk bi laa dee player yaa ngi gis so mun naa wax ne man player naa clubs yi nga xam ne even though when when the, when the things is not going very well, sometimes they boo you because they are not happy. In Europe, why in Europe? Sometimes they are not happy, especially when you play for big clubs like Panathinaikos. Mm. When you play for Panathinaikos, they don't accept draw. if you draw against Olympiacos <laughs> and Ike Athens. But all the other things you have to beat them. Wow. So Fofu, dañu flambeau waaye man fii play naa Gambia ma génna half time mu am ku ma doon oo si stand bi Demba Njoogu Demba bi ma ko jox sama attention mu buddil ma ndey <laughs> mu buddil ma ndey but this is part of our our life as players waaw nii rek thank you <laughs> loolu rek la ñu am peut être. ok <laughs> waaw all right uh, thank you very much Ndiogou. Uh, yooyu yëpp uh, pour replayer sa réew la ah. te tamit rek ñu comme ko gars yi waxee rek ñu congrats bu baax a baax rek boo bàyyee Sweden ñu play di di Gambia. Uh, gis nañ ñu ngi ñoo alaat ne time is running out waaye tamit bëgg nañ di nga waxtaanee tamit si ama um, uh, académie bi. bi ko gis nañ ni nga sampa fi académie waaye all of a sudden after gis nañ académie bi nu mu demee naka la fa demee. Ah. académie bi. man ñan sa balaa balaa nga boole yëpp rek. Ah, naka nga xalaate académie bi ak what what your plan pour bala moo ñëw fii. good um, bi xalaatuma ko to start with waaye académie bi dama toog bés I was this time maa ngi play Denmark as a professional we have many hours yi nga xam ne duñ dee def tara parce que suba leen dee train ay two three hours. dem pare ne man nag ma toog bés duga Ali Ali Baba xam Ali Express Ali Baba laa duga because maa ngi waroon na ñëw Gambia holidays su mu ne ma jëndal xale yi bagage su noonu laa toogee order bagage football boots footballs markers cones bibs everything from China put it in the container Gambia so léegi bu ma ñëwee Gambia ma wàccee container bi ba ma jógee ma ne pour xale yi ma jógee fi delluwaat Denmark suma benn brother mu kool ma Malick Malick Diagne eh, ne ma ne gars yi ngi wër fii dinañ jóg dem ba académie leen bokka why not nga register académie nga gën a mun a helpale noonu laa ko xalaatee noonu la startee su noonu lañ registré académie bi Malick Diagne suma brother bi moo ko register fii sax donc everything so noonu laa dooree rek every year di jënda bagage di seen so euh, lan moo woon difficultés bi académie bi demut ndax ndax ndax ñu ko yore woon euh, ñoo mënutoon a ron things ndax yaa dem ba gis ne xarama baxut waaw man dama believe de ñu fi nekkoon ñoo mënutoon a ron things parce que man lu ma mënu woon laa doon def mooy find sponsors finance ak ah, finance waaw des gars waaw waaw waaw man dama gisoo many times ne affaire si nekkul di demee comme nu ma ko dee mm-hmm. santaale mm-hmm. ak nu ma ko buggee damaa indi ay bagages. waaw jaar nga académie waaw mm-hmm. damaa indi ay bagages. ay computers laptops everything pour bill academy school and everything dañoo kasaare dañoo ñëw di jël di yóbbu seen kër yi ay toogu ay laptops ay lu nekk di yóbbu seen kër man ma fii loon digga digga ne this is waste of my time and my money you know and is sorry for the kids xam nga affaire si mooy time sax we were in good talk with uh, Patrick Vieira academy in uh, Sénégal even Lilian Thuram waaw waaw you know even Lilian Lilian uh, those days waaw ñoom ñëpp bokkoon nañ si everybody was quite hype about this Njogu Demba academy here in Gambia waaw Danishi was very hype about this when I was in Denmark Umbro was the main sponsor for this academy artificial pitches and everything pare woon nañ pour jox ñu ko yaa eh, ngi gis waaye dama xamoon tamit ne artificial pitch bi su waroon a ñëw di installment cost a lot you know fii those days dama daan eh, laajte comme xale yi pour ñu fay monthly su dee benn fifty dollars yi hundred dollars yi monthly lu ñu mën a fay rek ñu fay ko because those things will come back to the players xale yi those days dañ daan ne dañ bëgg a tukki dañ bëgg a boos njóogi dañ bëgg a boos ma ne leen train sax soo leen ko bëggee mun ngeen koo am waaye doo leen dee pare pour fay fifty dalasi twenty dalasi every mm. ku koy fay suñu waree dem play Sénégal tournament naka la ñoo demee yaa ngi understand ba pare plus waaw xam nga ñoom xamul ñoom ñoom xamul man dama believe ne leaders yi have to waaw take that uh, responsibility and uh, mm. yeah mm. let them know the reasons waaye they are paying this fifty twenty or hundred dollars whatever they have man xam naa ne those days dama ko daan dégg sax dama ko daan xale yi nii mu ne ko génn you know waaye pour génne hundred dollars yi da ngaa wóor si di dégg ne njóogu de moom ngay lekk seen xaalis la bu daa rek loolu tam dafa discourage ay xale suñu xamutee you know man all these things lu go on by sending things and nit di ko kasaare di yaaxa engrais waaw ndax jotoon na pour nga génne woon das euh, contrôle boobu noonu nga utaat anoon dañ ñu nga xam ne mën nañ laa contrôle non def ma loolu man dama fed up on rek waaw dama totally fed up ma ne xaaral ma bàyyi waaw waaye su ma paree dinaa delluwaat and I will do on the ground and I will do it so man si kawam léegi parce que idea bi mooy gis nga Scandinavia Scandinavia den like den like Gambian players waxuma la Africans de but they like Gambian players because xam nañ ne ñun we have it what it takes we have it Gambian bi has the physique Gambian bi have the technique Gambian bi has the mental strength that is required if you really want to become a pro you understand but the management is an issue you know people around the Gambian. Jóobu <laughs> uh, uh, final benn five minutes lañ ma may uh, ñu gisoon rek na Instagram yaa ngi postoon xale yi di play si Sandfield ak yeneen stuff ak yu mel noonu you fekkee loolu mooy continuer rek you don't see Gambian football going forward um, lan nga foog ne loolu lañ war a def dama believe ne we need to build football fields if you want to play football you want to play tiki Barcelona tap tap tap we see how many passes Barcelona they keep the ball for 10 minutes. passes passes passes passes dem naa fii nekk naa wàlli daan dem naa seetaani matches everywhere you know but unfortunately we cannot have more than five complete passes yeah. within a team te loolu you know it's true te loolu moom. five five five five touches five touches five complete passes we cannot have it. let's say possession we need to have possession and make the other team run and get tired you know this is part of the game you know it's the tactic because they let's keep the ball nañ la ñu xëcc ñu wàcc si tuuti. xam nga su gars yi gis that space behind their defense we go up but we cannot keep that five passes to get the opponents to come one two three four we lose because of the ground is terrible to be honest the ground is terrible dem naa GTTI I was there months with months with Walidan but whenever I go there I only inhale a whole lot of dust we need our lungs clean and pure as footballers not dusty You know, it's bad. It's really, really, really bad. Gambia need to focus on building football turfs, football fields. So they mean Europe, so they mean Sweden. You will see a whole lot of nice green football fields. But the sad thing with that, they are empty. Can't play. Can't play. They are empty. You know? Well, it's, part of, it's part of their plans. It's part of their plan. Therefore, the for what I'm people. Eh. Here we have players who wants to play, but we don't have football fields. You see, and you see how many Swedish professionals we have in Italy, wherever. Can you imagine Gambia soon among these football fields to focus on the play? How many Gambian professionals we will have? A lot, a whole lot. Gambia is a football paradise. par euh, léegi euh, Ndiougou am nañu euh, ma fii gis nga things mel it's very difficult pour ñu am lu mel noonu because of the people that are responsible mooy government mm. léegi léegi dañ ko dee pousse tamit si fédération bi waaye tamit mm. I don't think it's their duty pour war a fix ay parks mm. nga foog ne loolu government ak private companies yi war def government daal su dee am nañ su dee am nañ anything any funds from outside bu dee ñëw pour the development of the football and the sport let it go to that let whatever funds coming from outside. Ah, euh, FIFA to the GFF euh, pour xëy na grassroots wala female ñoom di. teg it pompe ko si national team bi. boobu different moom bi kii di wax so we're gonna have phone from from felene li pour sport ci yow very rare ñu woon ñu ko ne phone ñëw na pour sport non mooy li ñu doon wax mooy li ñu doon wax fii waaw suñ ko dégoûté sax ñu magal ne am na luy ñëw waaw nañ ko magale fii waaw we know that ñu eh? ko pom si yooyu noonu ne ko pom si sport bi waaye nga man li ma si li ma si li ma si lu mbay expliqué comme GFF mm. comme grounds when you comes to grounds ah. pour mu gën a easy si ñoom government ñoo ko war a ñoo ko a avouer nit ñi. bi foog nga ñëw ñu ne waa affaire yi garage fii ak mbay. ci ci waaw nga ñu ne waaw yaa ngi ne ñëwuloo woon taay ko yaa ngi fekk ah, mm, mm. ñoom ñoo waaw dëgg la. xam nga de bis dafa bloc si government la bloc. it's not the federation. I ñoom tam pour ñu su fekkee ne mënuñ ko liggéey sax. Mm. nañ ko alloqué ñenn ñi nga xam ne. pare nañ pour liggéey pare nañ pour liggéey yes nga xam ne dafa easy ba pare beneen bi nga wax mooy comme suñ team si nii. suñ demee is dem westam foog ñu bileem leen they don't have plans of course lii tamit bokk na si li nga xam ne bala ma di dogguma la um, bokk na si lu ma di wax gis nga teams yi even the teams they don't have plans teams yeah yeah the football teams yeah, don't have plans man dama gis ne they only have one plan all the time mooy jaay player doo player jaay player <laughs> bi moom lu mooy gis mooy mm. waaye su ma demee fii wàllu daan ma jël fa seen this player and that player and that player ah how will they re replace these players because we don't have a team two. We don't have a team three. You understand? We don't have anybody we are building. We are not building players. We are just taking somebody who is good and we put him in my team. And now when some team come from abroad, ñu jaay ko now that space is empty. waaye tubaab bi suñu gisee structure bu nga xam ne tubaab bi suñu gisee structure bu nga xam ne jël nañ midfielder bii winger bii nii ak striker bii nii ah waaye this team am nañ ko waat si second mu ngi ñëwaat. xam ne ne structure la they are looking at development. te loolu nekkul di am fii. nekkul di am fii. ñaar ñaari team benn team ko it's funny. it's very funny all these teams <laughs> has been here in the top league for so long. and none of them has their own training ground. but some teams are still selling players. why don't you have training ground why does the money go. dinañ dinañ dinañ gën a eh, waxtaan ak Dieng eh, waaye eh, guest ne next week incha allah dinañ gën a am njóogu gën a waxtaan ak moom fii fu ñu am rek si mm-hmm. mbiri ama team si organisé mm-hmm. benn agenda lañ am rek mooy jaay mm-hmm. waaye recently right now ñu ngi gis ne some of them ñu ngi jagar parks waaw ñu ngi jagar parks I see that which is good waaw this is good <laughs> right thank you very much li ñu def rek mooy dinañ dellu si waat fii next week incha allah ak njóogu bu fekkee ndox bi tiiwaatul ko <laughs> dinañ fi dellusi waaye sa waaye bi rek asone nine o'clock euh, dinañ seetaanaat ni programme bi euh, fii si biir Star TV avant sport ba daba euh, kon nañ jox leen doje ba next week incha allah